actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo dolleeku ci lim gi ko fi jot am lu tollook juróom-benn fukk ak juróom wër nañ juróom ñàkkaat nañu si seen bakkan benn soxna bu ay atam toll si ñaar fukk ak ñett la ñu fekk mu ñàkk bakkanam démb ci ngoon ci biir néegam ca ñaari tali moom moom mi sax nee nañ dañ ko violé ba noppi door ko faat danañ leen ko gën a la mbir mu doy waar am na tamit ca Louga ab scandale sexuel bu rëy ci diggante benn français ak ay tout tànk yu mu waroon protéger moom moomee nag nga xamante ne nii da doon jël taalibe yi di leen fat si kër ngir rek ñu dund dund bu mucc ayib la ñu joxoñ baaraamu tuuma ni daa sëggoon ci taalibe yooyee di leen di sàkku Seyda Mariama Niass denc nañu ko ca mausolée waajuram bu góor ni kii démb si altine ji ba ñu jullee takkusaan ba noppi xalifu Medina Baye bi di Cheikh Maye Niass def na témoignage yu am solo ci moom moomee di Seyda Mariama Niass ci seen opération ya ñuy amal di xool ñu takk masque ak ñu takk masque waa commissariat bu Thiaroye wàccoon ci marché ba eh, ci ndigal ngir teg loxo ña nga xamante eh, eh, ñu ne dañu koy embarqué waaye Virginie da doon bañ rek teg si mu yëkk leen lu mel ni xeme di leen di saaga saaga yu ñaaw lool dinañu leen gën a yaatalal li ni mel ak fan la Virginie mujjee ak ñi nga xamante ne nii di waa commissariat bu Thiaroye mairie bu Dalifort ñàkk nañu Idrissa Diallo dem na moom nag ni ki démb si altine ji la génn àdduna gannaaw ba ko feebar tëralee woon dana danañu leen dikkaatal ci nu mu gën a yaatoo ci bile xibaar beneen xibaar bu naka di tamit jib na ni ki démb ci altine ji ancien ministre de l'intérieur di général ma du Niang moo génn àdduna ci hôpital principal bu Dakar njiitu réew mi Macky Sall sax daal na ci réagir animatrice ba 2STV envoyé woon ca élection présidentielle ivoirienne bi te garde corps njiitu réew mi Macky Sall Euh, daal di ko doon agressé foofee euh, daal di nay rek yëkkati ay kàddu gannaaw ba mu noppaloo ba noppi mbirum pend Penda Guissé dañu si àddu moom nag maire bu futtu la def euh, ci kii di Guigui ak Nafi Dièye gannaaw ba mu leen guuxalee woon ci xibaar ba ñu jàllale woon ci fréeram bi di dem Guissé li ni mel tax ba Penda gisee yëkk leen lu mel ni xeme en direct foofee ca Sen TV ba ñu ko dalaloon mbirum Juliette Ba di taskatu xabaar dañu wax si moom ak histoire bu triste ba nga xamante ne nii uh, daa dina koy uh, raconté la mu ca xam le yëpp danañ leen ko xamal laata ñu koy tëjee ak mbirum tàggat yaram li moo ciy gën a fës bu ngeen taaxirloo gànnaaw bàkk bi ñu yaatal bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal na fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewale ba jaaxal ma waaw waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewale loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yi la oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote si numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. leen dalal leen jàmm ci xibaar yi comme ñu ko tàmm di defee mbas mi ñu koy dooree bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu bàyyeekoo ca ministère bu gàcco wàllu mbir gu yaram wi tey juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti doomi la ñu testé juróom fukk ak juróom-ñetti ya ñoo ca positif ñaar fukk benn yi dañ leen wàll juróom fukk ak ñaar yi di ay cas communautaire juróom fukk ak juróom faj nañ leen ba ñu wër fanweer ak juróom-ñaar sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na juróom yu si ñàkkat seen bakkan si mbas mi nga xam xam ne ba mu ñu ganisee eh, ba jamono ji lii may wax ak yéen lu tolloo ko fukki junne ak juróom-ñett ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn doomi jot amee si ñoom ñooñu fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent fukk juróom-benn faj nañ leen ba ñu wër ñetti téeméeri doomu aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñàkk nañu si seen bakkan fi mu ne nii junne ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ñoo ko fi amee ñu leen si traité comme nu ma leen ko junjee alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre waa commissariat bu caaro yi dañoo wàccoon ci marché ba si ndiggal ngir teg loxo ñu takkul masque si noonu la ñu yemee ci benn soxna buy wuyoo si turu ba Virginie mu nekk ca marché ba euh, tey solul li nga xamante ne ni moo di masque waaye ba ñu koy embarqué Virginie da bañ ba tëdd si suuf ne euh, duñu ko yóbbu teg si di saaga policier yi di leen di naan euh, tamit ay corrompi lañu xaalis képp la ñu bëgg Virginie moom secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur da doon ndamoo sax ne am na magam ba nga xamante ne nii policier la te naan leen pare na ngir jox leen 3000 francs waaye teewul ñu yóbbu ko commissariat ba xamal commandant ba la mu la def ca marché ba ak la mu leen yëkk lépp foofee ca marché bu Thiaroye ba ñu ko teewloo ca commissariat ba Virginie daa mujjee di rëccu tey jéggalu laata ñu koy libéré waaye ba mu ñibbee seen kër daa wax ay waajuram ni policier yi dañu ba noppi saaga ko ba ñu ko xamalee patron gu bi daa dal di ñaawlu ñaari kàddu yu Virginie wax tax mu convoqué waat ko foofee ca commissariat ba ba mu janawaate ak ndaw si la secrétaire d'état au sénégalais de l'extérieur woo sërëm boobee wax ak moom mu xamal ko ni sax mi ngi regretté maanaam rëccu lu xew laata mu yise di tourner si chef de service bi nekk mu classé mbir mi sans suite benn soxna bu ay atam toll si ñaar fukk ak ñett lañu fekk mu bakkanam démb ci ngoon eh, ci biir néegam ca ñaari tali famille yu ndaw si sax ñoo ko gis foofee mu ñàkkee bakkanam eh, bu sukkandikoo ci xibaar yu ñu si njëkk jot ndaw si dañu ko violé laata ñuy jël eh, bakkanam police demoon na fa mbir ma xewee def constat bi laata commissariat bu ñaari tali di si ubbi enquête mbir mu doy waar lool la nemmeeku ca Louga di ab scandale sexuel bu rëy si diggante benn français ak ay tout tànk yu mu waroon protéger moom taalibe yi nga xamante ne nii seen i at si diggante juróom jàpp fukk ak benn la toll di taalibe ya nga xamante ne nii si mbedd mi la leen jëlee dal di leen di yóbbu ci centre boobee mu dippee action en faveur des enfants de la rue di structure boo xam ne lu ko tax a moo di aar ndaw yi mettre leen ci condition yu mucc ayib yoon nag mi ngi tàmbali def saytu ci français boobee ba police jotee benn appel anonyme bu ko xamal ni benn taalibe bu ay atam toll si juróom ci R Minguez moomee di responsable action en faveur des enfants de la rue taalibe ba koy tuumal nag nee na français bi da ko proposé te dëkk moom mu bañ mu daal di koy génnee këram googe ba ko police teewloo français bi daal di nay weddi la ñu koy tuumal ne rek si dimbaliwaate lay yëngu waaye yeneen taalibe yu ñu teewlu xamal nañu leen di R Minguez moomee da leen doon lambaatu bu leen doon sang génn ñenn ñi ne yéen saay da doon tëdd seen kaw si bu ñu doon nelaw beneen tout tànk ne euh, français boobe violé na ko li ni mel tax na rek ñu teg ko loxo ngir pédophilie acte contre nature mu génn ci kaso gi bu yàggul dara ngir penn benn at ngir acte contre nature si benn taalibe e PS ay si ñaar fukk taxawaat na ci kanamu attekat yi moom nag dañu ko tuumal ni dafa violé benn xale bu jigéen bu am ñetti at képp tax ñu teg ko loxo ba noppi defeere ko parquet bu tribunal bu Louga li ni mi ngi xew àllarba bële ñu génn ca village bu ñuy wax Dagat Sarr nekk ci commune bu Ngidile bés boobee si bëccëg bi la soxna si di BS remarqué ni doomam bu jigéen bu nga xamante ne ni dafa foowi ñibbisiwu la si noonee mu wër ko ca village ba yëpp gisu ko mu tàmbalee jaaxle si noonee mu romb bâtiment bu parewul dal di taxaw xaacu turu doomam ji laata muy jógee foofa sax la yem ci seen bu doy war doomam ji di génn ci bâtiment boobee ànd ak PS si noonee mu woo dëkkandoo yi yëpp laata waa ji di xamle ni da yóbbu ci bâtiment bu parewul bi ngir tëddee ko si noonee mu ne sax summi na ko dindi moom it pantalon ba mu so tolloon waaye nee na ba mu tàmbalee ngir yegg ci kawam la dégg baatu waajuru xale bi mu dal di areté li ni tax ba ay waajuru xale bi yóbbu seen doom ja ca gynéco mu xamal leen ni partie intime mu xale bi am na ay gaañu gaañu yu ndaw tax parents yi porté plainte ca brigade mixte bu Louga lata ñuy teg loxo waa ji teewlu ko euh, sur procès verbal ba noppi di koy toppee viol sur mineur ba nga xamante ne nii amagul fukki at ak ñett alxames bële ñu génn lañu récupéré sax parquet bu Louga ay jàppante yu métti moo am démb ci altine ji ca marché aslem ci diggante takk der yi ak jaaykat ya fa nekk ci noonu ñu lakk fa ay pën sandante fa ay xeer ak i grenade lacrymogène jula yooyee nga xamante ne ni ànduñu ci initiative bu mairie bi di nettoyer marché bi dañoo bloqué woon circulation bi ci ay waxtu yu bëri ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz Seyda Mariama Niass denc nañu ko ca mausolée waajuram bu góor di ndem ci yàl Niass ni ki démb si altine ji ba ñu jullee takkusaan ba noppi xalif bi imam bi ak gouverneuru région ba teewee woon nañu dëj bi xalifu Medina Baye bi di Cheikh Mahi Niass def na témoignage yu am solo si Seyda Mariama gannaaw ba mu xam leen ni ba Seyda Mariama amee juróom-ñetti at wala lu ko gën a néew la tànn alxuraanul karim dal di koy jàng waaye itam ko si ñu gën a ndaw ba tax mu nekk bénéfice ngir Sénégal ak umma islamique bi yëpp taalibe yi jóge jógee ko woon nañu fu nekk ci Sénégal ngir rendre hommage bu mujj doomu Baye Niass boobee moom nag ay atam a ngi tolloon ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. Ahmada bu Serigne Modou Kara daa dinay indi moom it ay seede ci Seyda Mariama la mu xam ne nag moo di eh, seen teewaay mënu la ñàkk si ndigalu ba sëriñ bi ànd ko ak taalibe yi laata muy xamle ni eh, Seyda Mariama daa nekkoon ka nga xamante ne ni diine rekk ko ñoroon ak l'islam te tamit eh, jàng digganteem ak sëriñ bi di Cheikh Modou Kara nooree ni daa mës rafet ndax ñoom ñax ñëpp ku si mës woote sa morom dalay wuyu si ànd seeg yow ba tax Ahmada ne li ni mel sax seen teewaay mënula ñàkk ba tax na ñu ñëw nekkoon ci ginnaaw taawam bu baax bi nga xamante ne nii ñu ngi koy wax benn Omar ak i ay rakkam laata muy ñaanal Seyda Mariama yàlla jéggal ko te tàbbal ko aljana mu dëkk ak waajuram bu tedd ba comme nu ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi maire bu Dalifort sa Diallo daal dinay génn àdduna ni ki démb si altine ji gannaaw ba ko feebar bu gàtt tëralee woon ñu ëpp sax si ñu dëkk Dalifort yëgguñu woon feebaram tey si talaata ji ba 14h jotee maanaam ñaari waxtu si bëccëg la ñu ko denc ca armeer musulman yu nekk ca yoofa ngir nag éviter dajaloo bi ndax mbas mi famille yam euh, daal dinañuy xamle rek ni levée du corps ba ak ña nga xamante ne ñoo bokk famille bi képp ñoo koy teewee leaderu coalition taxawu Sénégal di Khalifa Sall daal dinay réagir ci génn àdduna maire bu Dalifort bi gannaaw ba mu nekkee woon membre ci mouvement wam bi Khalifa Sall nag nee na suñu réew mi ñàkk nañu kenn ka nga xamante ne nii si doomam yi ku digne la di nit ku remarquable ku am dignité jub lool waaye itam nekk exemplaire si engagement patriotique am ba loolu weesoo Khalifa Sall ne tamit Dalifort ñàkk na serviteur bu dul sonn nekkoon nitu valeur laata mu koy jàll soxnam ak ñaari doomam yi eh, te koy ñaanal eh, moom moomee di Khalifa Sall gannaaw ba mu xamalee ni Idrissa Diallo moomee frère la ci moom. beneen xibaar bu nàkkari ancien ministre de l'intérieur bii di général du ñan moo génn àdduna ca hôpital principal bu Dakar moom nag Covid 19 bi moo ko yóbbu démb si altine ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru décembre njiitu réew mi Macky Sall nag daal dina si réagir ci page Facebook am di saluer mémoire soldat bu brave bu servir état ba souffram bu mujj ba loolu weesoo njiitu réew mi ne am na peine ba mu yëgee génnub àdduna général Mamadou Niang ancien ministre de l'intérieur waaye itam euh, président de la commission cellulaire et du dialogue politique laata mu koy la Tiwaawoon daal di nay euh, mere njiitu réew mi yi Sall ndax remaniement ministériel yu mujj yi gannaaw ba Macky écarté ci gouvernement bi ay jegeñaale xalif général des Tidiane ñoom nag mënuñoo muñ limogeage Makhtar Cissé mu yor coordination gu comité de pilotage liggéeyu ba grande mosquée bu Tiwaawoon bu Serigne Babacar Sy Mansour lancé li ni mel wàññi ay relation gu njiitu réew mi ak waa Tiwaawoon waaye nag gën naa wàññeeku ci ba Macky Sall limogé tamit doomu Serigne Abdoul Aziz Daba baax bi di Cheikh Tidiane Sy ci postam bi di ambassadeur Sénégal ca Riyad nekkee ca Arabie Saoudite ma wax ci mbirum statut ville yu ñu fi fas yéene jëlee ñu annoncé woon ko bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi député yi examiné nañu démb euh, projet de loi bu porté ci loi d'orientation pour l'aménagement ak euh, sukkali li nga xamante ne moo di ay territoire yu ñu signé ngir ñu jëlee fi yenn ville yi euh, si noonu fukki métropole d'équilibre nga xam ne bokk na si Saint-Louis Thiès Touba Mbour Ziguinchor Kaolack Kolda Tambacounda Kédougou ak Matam dinañu juddu ci centre ville commune yi bu ñu sukkandikoo ci jëwrin bi di Oumar Gueye ville bi amatul tey raison d'être te dinañu créer ay métropole am ngir décongestionner Dakar bu occupé zéro trois pour cent ci superficie bi ba noppi recevoir daanaka vingt cinq pour cent ci askan wi fukki métropole yooyu dinañu fa def ay infrastructures yu nécessaire ya nga xamante ne ni dina si bokk université hôpital de niveau ak agropole ngir activité économique yi. gannaaw njiitu réew mi Macky Sall Sanjogu moo ko feelu moom it di doxantu ci otoom nee na ak doomam bu jigéen di ñaawal rek njiitu réew mi ki Sall ma mu doon imité ci rek promenade ba mu doon amal ci samedi bi moom ak doomam ju jigéen ji. 2STV envoyé woon ko ca élection présidentielle ivoirienne bi présentatrice télé boobee di tamit ex Miss Sénégal benn garde corps Macky Sall moo ko agressé woon foofee animatrice bi nag dafa wutoon benn certificat médical ngir arrêt maladie dal di noppalu bu baax moom nag nee gisoon na message yi si waxtu agression wam bi waaye mënul woon wax ak ñoom ndax booba mënul woon dara laata muy xam ne ni léegi alhamdulilah ndax ñibbisi na Dakar Seen et mottali seen bi mi ngi amoon ci kanamu Macky Sall mu étonné woon loolu bu ñu sukkandikoo ci lii quotidien ma wax ci histoire journaliste bi di Juliette Ba nga xamante ne nii triste na lool moom moomee am ñeent fukki at ak ñett dafa yor feebar bu ñuy wax endométriose ba tax mu marié ñetti yoon divorcé ñaari yoon te amul benn yoon lii di doom donte def na quatre opérations chirurgicales quatre fécondations in vitro waaye ba tey rek taxul mu am la mu bëgg moom moomee sax di anime jamono ji émission ca tv liggéey na ci média sénégalais yi lu yàgg lool mu xamle ko leneen mag bu rappeur bi di Fou Malade moo ñàkk bakkanam tey si talaata ji ci suba si ca hôpital Roi Baudouin bu géejawaay xibaar bi nag ay membre famille Talla yu bëri dëggal nañu ko ay atam toll ci juróom fukk Jibi Talla employé la woon sax ca port autonome bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci famille yam kar cardiaque moo ko yóbbu yàlla na ko yàlla yërëm équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi koy jàll famille Talla gi yëpp ci sama du mu mer lool ca plateau Sen TV ba ñu ko dalaloon Penda Guissé daal dina yëkkatay kàddu yu ñagas jëmale ko ci Biggi Pendo nag ba mu xam leen ni ragalul lu yàlla bind laata muy naan réew mi réewu kaf la ba tax na lépp fi am si noonu Pendo ne ak waa Sédhiou ministre bi la ñu doon wax tax mu ne ministre bu dëkk Sédhiou comme dimbalewul artist ya dëkk ca Sédhiou moom Pendo du wax ci ay waxam ba tax nee na rek kii di ministre bi convoqué leen wa illaa woolu leen tax waaye nee ba mu leen recevoir mu ne ko man Pendo maa waral coow li jaar si lu mu jaaroon te nee na ku wax ci vidéo bi mu saaga la ndax moom moomee daa bëri fayda kenn du ko yab laata muy naan bigi lépp yéen a ko indi yéen a yàq réew mi te naan ko sax yow bigi ñam ndaxte bi nga waxee ni dem ba gisee daa mel ni ko ndeyam juree woon lama la yëkk ca téléphone yaa ngi na fi jëy bu si wëñ daanoo dee te naan leen seen émission yi ngeen di def di ay 100 pour cent buzz ak li nañu si seet lu rafet ñu koy siy wax ndax lu yàq réew mi rek ñoom ñoo ñëwee la jàpp rek nit ñi di leen di jaxase seen biir mu yëkk leen ko moom pendoo ca plateau Sen TV ba. tàggat yaram dama koy dooreek làmb ak Djiby Amar mu feebar tëral ba tax pikiniwaa yi di koy sàkkul ndimbal si ñuy def te yàlla tax Waly Ballago Seck daal dina si réagir mu moomee ab délégation la fa yebal daal di dimbalee Djiby Amar mu tëdd lu ëpp ñeenti at lu tollook un million cinq cent mille si suñuy koppar combat si diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier lay addu Aziz Ndiaye nak daa bëgg combat boobee am coûte que coûte ancien promoteur bi pari na sax ngir wuutal ay sponsor Gaston Mbengue ngir ñu amal combat bi éviter li nga xamante ne ni moo di deuxième saison blanche ci euh, poulain wam boobee laata muy naan Balla pare na sax ngir bëri à huis jamono ji may waxee ak sax Balla Gaye 2 ak Ama Baldé ñoo ngi amal ay musculation nekk rek si seen fini ay préparation ma addu ci Sénégal u bi jamono ji ca Algérie euh, si waajtaayu tournoi qualificatif bi ngir Coupe d'Afrique des Nations mu moyen de 17 ans yi ñetti membre délégation bu Sénégal defuñu euh, déplacement bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeeko euh, record ñoom ñooñee dañu leen testé ñu positif ci coronavirus bi mu bokk ci coach principal ba di Malick Daf kinésithérapeute ba Yahoub Aydara ak préparateur physique gardien de but yi di joueur Korea mbirum Sadio Mané la koy tëjee comme nu leen ko xamale woon ni ki démb tout tànk boobee ngeen di gis ci écran bi moo bëgg soppi nationalité ngir jouer ak Sadio Mané ak Sénégal gannaaw ba mu amee cofeel bu jéggi dayo ci doomu bambali boobee di international sénégalais bi di Sadio Mané